finalement est-ce que yow tamit neex ngaa cerner non mais Fadel yaa ngi si journalisme bi nee nga da nga dugg pour xeex nga toog ba si que yow ko nit mën la yàgg ba ñu ne commencé nga dox nga dem si leneen mais est-ce que est-ce xam na lu mu bëgg ben affaire rek laa bëgg moy réew mi yeewu que Afrique baax que Sénégal leeral Afrique combat bu mo mënee ma nek ci su ma nee ba gis ne am na ñeneen ñu ko porté ñu plus que ni koy porter ma bàyyi leen ko ñu ubi beneen. dem defi ubbi beneen front. mais comme yow di ci waaye combattant tout à fait. du combattant mais du combattant buñ jël présidence de la république sax ñoom exemple lay joxé parce que yow xam nga loolu li gëna a bon ci dëkk bi xam nga moy lan ah hein? moy ASC bu ñu ñëwoon defee président doo fa ti Sénégalais zone de confort rek la xam tok fa. waaw. toogoon nekk coordonnateur Y'en a ak a neex. coordinateur ba ngi ne la ñu lay tàllal micro yi ba bàyyi ko fa dem ci terrain du commencer à zéro nga xam ne am na lu tax. lo ray Y'en ma parce que pour man. taxaw du leen ko ba mu taxaw deug deug avant ngeen di def. yéen da ngeen ni juger ay ma ci ben nit ak ci ben génération mais xala génération yi ñëw ci kanam dafa nek ci mauvaise passe rek.

mais toog ci benn affaire rek téye ko dafa faraax doo permettre xale yi ci suuf ñu ñëw ñi nga xam ne bi ñu koy def ñoom gis nañ ci seen bopp nga ubbi libérer espace bi démocratie noonu lay vivre xam nga man ni ma mel noonu nga xam ne du ma xëccoo mukk ay place ci kaw moo lay wan ne la su ma jël nekkoon président du ma xalaat kenn du xalaat benn Sénégal yi doon sikki sàkk troisième mandat duñ ci am doute c'est parce que mënoon naa ko li def yaa